salaamaaleykum yéen ñii di ñu seetaan fii si leeral point net leeral TV canal 33 tey nag comme ni ngeen ko gisee paysage bi décor bi ak lépp ngeen xam ne rek ñu ngi si wàccaayu lii di gàmmu bi. tey nag ñu ñëw gàmmoo fi nga xam ne mooy madinatu Cheikh Ibrahima Niass ñu wëral leen nag bëccëg bi yëpp comme promis defaral leen ay reportage si gox-goxaat yëpp. laa ñu egsi nag defal leen spécial émission comme politique Compromis, l'émission qui parcourt l'actualité, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, leen un débat constructif, productif et positif. tey nag euh, débat bi dinañ ko axé ci actualité mais aussi axé ko ci gàmmu gi ñu am nag invité boo xam ne invité de marque la ndax nee nañ leen fu ñu dem dañuy jéem a seet la bonne graine ñu daje koo xam ne nii macha allah dañuy bàyyi rek moom ci boppam mu présenté wu pour mu doon suspense si yéen en attendant ñu dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu soxna Zeynab. bienvenue à Medina Baye. ñu ngi lay dallool ci jàmm ak salaam. ci gàmmu gi gàmmu gu màgg gi gàmmu yonent yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa gàmmu gi nga xam ne weer bi bu dalaan rek eh, suñu sang bi Cheikh Ibrahim Niass daf daan kontaan kontaan ba ñëpp dañ ko daan félicité mu nekk tamit li nga xam ne moom la ñu jàngal moom la ñu euh, bàyyee ñu fier ci lool lool lool euh, seen mbokk seen xarit sénégalais de souche juddoo Medina Baye yaroo Medina Baye euh, mooy wax ak yéen tey je m'appelle Alioune Thiam je suis Kaolackois je suis sénégalais très fier d'être sénégalais Et je pense que à travers notre discussion, Inch'Allah, aujourd'hui, euh, vous aurez l'occasion de me connaître un peu mieux. mais kon ma bàyyi la rek nga jiite wax ci. jërëjëf comme ni ngeen ko gisee Aline Thiam nag la ñu ñëw découvrir fii bi ñu xoolee def suñu investigation laajte yëpp ñi nga xam ne ñoom lañ war a laaj Aline Thiam nee nañ ñu ku gëjoon Sénégal nga ñu lay laaj lu waral gëj boobu. merci gëj Sénégal bi c'est euh, concours de circonstances man sum papa lim gënoon a gëm ci àddunaam mooy jàng donc euh, après le bac euh, il m'a envoyé au Canada faire mes études là-bas et après mes études j'ai travaillé au Canada mais par la suite j'ai travaillé pour le gouvernement américain pendant 17 ans et pendant ces 17 ans je me suis rendu compte que j'étais en train de servir un autre pays au lieu de servir mon propre pays. Et si je pouvais retourner vingt ans en arrière, je serais revenu beaucoup plus tôt. donc euh, Alioune Thiam euh, ñu gis ne dégg tamit fu ne ne sa waajur wu góor moo nekkoon ki nga xam ne moo daan dawalal Cheikh Ibrahim Niass euh, Mambaye ñu lay laaj nag nga xuusal ñu ci yow sa diggante ak euh, Mambaay ak sa diggante ay waajur ak Mambaay ak sa diggante ak njabootu Mambaay. laajte boobu vraiment mooy laajte bi nga xam ne c'est essentiel euh, El Hadj Ousmane Thiam mooy suma baay euh, yaayam mu ngi tuddoon mam Astou Diankha maam Astou Diankha boobu turandoo yu maam Astou Diankha bi jur Baye Niass mu nekkoon bàjjanam mambaay moo jël suma baay def ko comme doomam indi ko fii Medina baay muy mu koy liggéeyal nekk xale bu ndaw nekk ci suuf maam fu nekk ànd na fa ak mambaay pour voyager lu nekk maam sant na ko ko mission mu nekk un dévoué un gars boo xam ne lépp loo xam ne maam Baye soxal na ko moom soxal na ko muy ciy jóg di ci liggéey dama doon wax ak démb xalifa bi ne ko maa ngi ñëw maa ngi ci liggéey ak yooyu mu ne ma lépp loo fi liggéey lépp looy jéem a def rek dina sotti te dina barkeel ndaxte sa baay liggéey na ko ci dëkk bi mu nekk loo xam ne vraiment c'est extraordinaire ñun demoon nañ ba fii nii ñuy doon wax naan suma baay demoon na ba xaw a dof parce que daf daan dox di jël ay ay euh, comment du du bois bande dugal si poche am personne ne comprenait pourquoi il le faisait mais moom fajar avant Mame di yeew dina jël bois yooyu noonu def ci safara tàngal ndox pour que mambay am ndox bu nugg bu mun a jàppee bu yeewoo fajar ok donc kooku toute sa vie il a travaillé pour bopp boo demee tey si armeeru euh, Médina yi fi mu tëdd dañ fa bind Ousmane Thiam Moubaye El Hadj Ousmane Thiam Moubaye ici repose El Hadj Ousmane Thiam Moubaye booy laajte El usman Ousmane Thiam ci dëkk bi balaa ngay pare ñu ne la kan Ousmane mu Moubaye donc ça ça veut tout dire donc y a des références si dëkk bi ñoo xam ne c'est des fils spirituels de Baye je vous donne l'exemple de oustaz Barham Diop radiyallahu anhu yàlla na yàlla dollee leeram ak ñeneen ak ñeneen ak Ousmane Thiam mu bàyyi moom ñoo ñu bàyyi moo leen jëloon boole leen ci boppam teg leen ci boppam def leen comme ay doom te boo ko xoolee tamit ci histoire bi noonu la mel ñun tamit noonu lañ si loolu lañ juddoo man am na ay doom yu bàyyi yoo xam ne su may moroom lañ ku ci mel ni euh, Abdou Malick Niass suma xarit suma suma suma waaye dëgg a ngi noonu am na ci ñoo xam ne ñoo ñu mag tuuti ku mel ni Mahdi Chafio man bi ma nekkee États-Unis dañ daan ñëw di suma kër di fa dal hmm. loolu ça veut tout ñi ci des nag ay Baba Lamine ñooñu suñuy wasila lañ Baba Lamine Pap Mahi Pap Pap Ahibu ñooñu ñëpp man bu damay am fierté ne ñii laa bokkal ndax li ñuy représenté mosuloo toog dégg si ñoom wax joo xam ne c'est pas relié directement à la religion c'est pas relié directement au tariqa c'est pas relié directement à ce que euh, notre prophète sallallahu taala alayhi wa sallam a recommandé de faire dans notre vie donc moo tax loolu ma ma ma ci lool je suis très très très de ça sànq nag ñu dégg la nga wax euh, sa ñibbisi fii ak nga maanaam approprier wu revendiquer sa fierté nekk sénégalais. ñu nekk nag ci moment bu difficile si jeunesse sénégalaise bi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo décroché daanaka ñu ngi dem vers l'immigration clandestine di jël bateau yi di ci dee. ñu gis un jeune sénégalais bu ñoo xam ne dem na euh, foo xam ne maanaam le pays de l'oncle Sam c'est le rêve de tout jeunes mu ñibbisi ne moom daa fas yéene liggéeyal réewam mun nga ñoo jox une petite histoire de cette motivation lan moo waral sa ñibbisi ak lan moo waral nga gis dëkk bi mu demee nii nga ne yow daal ngay ñëw malgré tout liggéeyal sa réew. pour la question soxna hmm, Zeynab. récemment il y a moins d'un mois j'étais aux États-Unis je devais faire quatre semaines au bout de trois semaines j'ai pris mes bagages, je suis revenu au Sénégal. Pourquoi? Parce que le contexte ne s'y est plus. boo ñu ba africain yi di daw États-Unis di dawee États-Unis pour des problèmes euh, euh de santé publique di ñib si Sénégal loolu c'est révélateur mais en plus de cela il faut que les Sénégalais les jeunes Sénégalais ok commencent à démystifier cet esprit de voyager nécessairement Le voyage te donne de l'expérience. Le voyage te donne des opportunités par-ci, par-là. Mais billahi, tous les efforts qu'on fait à l'étranger, si on le faisait dans notre pays, on n'aura on pas besoin de de de quitter. man tey jii nii bu mu mënoon a dellu vingt ans en arrière doon naa teel a ñibbi un jour j'étais venu en vacances fii nii à Kaolack ma toog di waxtaan ak bi ñu dem ànd chez le notaire ma dawalal ko kii ba heure yi ñibbi jot quelque jours après mu xool ma mi ba mu yàgg mu ne ma su ma la mënoon a xaaj en deux bàyyi benn partie mu dem benn partie toog gis nga wax boobu bu fekkoonte ne tey la wallahi du ma dellu jour boobu bu doon ñibbi rek la tey duma ma parce que ce qu'on peut faire au Sénégal Sénégal c'est le seul pays où je dis mon nom est Alioune Thiam kenn du ma tourné ne ma ah ah noo noo koy appelé ok noo koy appelé euh, ban pays nga jógee ok euh, fan nga bokk ok tant et aussi longtemps qu'on n'est pas au Sénégal on n'est pas chez soi et pour commencer à bien vivre il faut vivre chez soi ok Sénégal gii nii am na ay opportunité Sénégal gi am na ay affaires yoo xam ne boo ko fi jëmbatee dina sax boo ko fi gëmee dina sax il faut croire en soi il faut avoir cette fois en soi et envers la euh, euh, euh, la société ok il faut y croire il faut parce que am na ay sénégalais yoo xam ne génnuñu demuñ fenn fii lañ toog deewoo ko fi réussir ko fi mieux que ñi ñi ñi émigré ok man je vous dis que s'il y a ans de cela si j'avais la possibilité de revenir je l'aurais fait pourquoi parce que je me dis que am na ay opportunité yu nekk fii nii yoo xam ne bu ma ñëwoon doon naa liggéeyal suma dëkk ça c'est de un doon naa liggéeyal sumay concitoyens euh, de deux doon naa dimbale le développement de mon propre pays au lieu de de le développement de notre pays ok et du yàgg du yàgg ba ma ne bañ ne Alioune Thiam est un américain cent pour cent mun naa am kayit mun na am kayit Canada mun naa am kayit feneen mais je ne suis Alioune Thiam qu'au Sénégal et les risques les risques yàlla moo ñu jox suñu bakkan ne ñu sàmm ko amuñu droit jël ko teg ko ci ay bateaux yoo xam ne c'est des bateaux de fortune ok dem en mer di risquer une vie des lendemains dont on ne sait même pas ce que cela nous réserve. Il y a des gens qui sont allés en Europe, qui, sont, qui ont été rapatriés. Il y a des gens qui sont allés en Europe qui n'ont pas réussi à avoir du travail. am na ñoo xam ne dañuy dem ba foofu ils sont plus fatigués là-bas qu'au Sénégal. les risques dans les pays maghrébins c'est c'est c'est c'est c'est hyper dégradant et c'est dangereux. c'est dégradant c'est dangereux. y a des risques di gis naa fi ay vidéo yoo xam ne c'est des vidéos de de de de d'esclavagisme mm. et cetera donc ce sont des choses yoo xam ne ok on ne peut pas euh, se permettre de fair ça alors euh, Aline Thiam ci lancé boobu mën nga ñu expliquer tey sa ñibbisi fii lu ko waral ak lan nga nekk di def lan ngay toggal Sénégal xam contexte euh, mondial bi dafa changer depuis, je dirais, 2016, mm. avec l'arrivée au pouvoir mm. de certaines personnes qui, lorsque vous regardez autour de vous, vous savez très bien que vous n'êtes pas assez bienvenu pour ces personnes-là, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mm. OK Ceci dit, euh, lorsque j'ai décidé de venir au Sénégal, c'était plus pour m'assurer que mes enfants, qui ont 12 ans et 16 ans, sache lan mooy seen culture lan fan lañ dëkk fan lañ bokk et que buñ màggee duñ ki duñ duñ en problème insertion sociale au niveau du Sénégal mais en plus de cela quand je suis revenu je suis resté pendant des mois et des mois à observer à observer damay xool dëkk bi lan moo fiy problème parce que boo ñëwee ci dëkk am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci ay domaines plusieurs domaines mais mois j'ai opté de regarder d'abord ma xool damay xool ba pare ba xam lan la laajte lan la nit ñi soxla lan la nit ñi di def loo xam ne mun nañ ko améliorer donc à force de regarder autour de mois bi may toogee fii nii pendant ay six mois li ma observé mooy ne Sénégal dafa am problème de sable waaw suuf si dafa bëri partout partout partout si suñ dëkk bi muy les grandes villes muy les petites villes suuf si dafa bëri te suuf soosu dafay dugg ci égou yi bloqué ko bu tawee tuuti Dakar gis nga nim ok lu tax parce que on importe dañuy dañuy jëlee ay camion camion yu bëri ay millions de mètres cubes de sable la ñuy dem di jëli di ko indi ci biir ville yi pour la construction buñ ñëwee jal suuf ci mbedd mi jal xeer ci mbedd mi donc di dem jënd ciment pour def des mélanges sur place afin de commencer à travailler bon cette façon de faire moom laa fi bàyyi woon yaa vingt cinq ans man dama daan liggéey fii nii suma euh, chantier papa suma papa bu amaan chantier damay dem si gannaaw dem si entrepreneur bi ne ko voilà euh, est-ce que doo ma embaucher ñu may fay mille francs par euh, par par jour ok on paye mille francs par jour may yëkkati kii si woo suuf si woo xeer ok dimbale maçon yi nekk aide maçon et cette façon de faire il y a trente ans il y vingt cinq trente ans ok ñu ngi koy utiliser ba léegi mais loolu du développer dëkk du développer dëkk parce que maçon bi nga xam ne mooy jàng naka la ñuy mélanger ciment ak suuf tey jii nii mu ngi ko jàngee ci benn pas boo xam ne mu ngi ko jàngee ci beneen pas boo xam ne mu ngi ko jàngee ci beneen pas boo xam ne ainsi de suite bu ñu ñëwee ci chantier bi bu ñuy def mélange léegi léegi nga gis ne mélange bi c'est pas homogène léeg-léeg nga gis ne mélange bi defuñ ci quantité yi ñu ci war a def yëpp moo tax léegi léeg booy tabax nga gis benn partie bu weex tàll nga gis ne y plus de sable ici que kii léegi léeg tamit bu ñuy defar béton duñu respecter le dosage qu'il faut nga toog gis sa building sa immeuble muy pente d'un seul d'un endroit ok nga xam ne fii nii la le problème c'est un problème de de de solidité du béton biñ koy mélanger ok yooyu yëpp duñu respecter euh, euh, quantité yi ñu ci war a def duñu respecter homogénéité bi duñu respecter affaire yu bari yoo xam ne c'est en rapport avec la construction moo tax léegi léegi ngeen dégg ay ay ay ay problème benn benn bâtiment bu daanu fii wala kii ok nga gis ay fissures yu mag si yenn bâtiment yi yooyu yëpp c'est en rapport avec des choses yoo xam ne euh, teguñ ko ci ci ci ci euh, norme teguñ ko ci norme yi nga xam ne ingénieurs euh, yi civil moom la moom la mettre en place pour dire que par exemple si on dit si parle de kii béton cent cinquante par exemple dañuy def trois cent cinquante kilos de ciment ak tant de kilos de basalte ak tant de kilo de sable ak tant de litres d'eau bu ñu koy mélanger ba nga xam ne dafay jox benn kii benn consistance ak benn euh, dëgëraay bi nga xam ne moom la bâtiment bi soxla pour taxaw mais léeg-léeg xam na nag bon y a plusieurs raisons léeg-léeg mu nekk benn waaju sant Sarr lekkul ba suur du mélanger affaire bi correctement mm. léeg-léeg mu nekk tamit Euh, de de un maçon véreux yàlla na ma yàlla baal koo xam ne au lieu mu def par exemple dix sacs de ciment mu def par exemple neuf sacs de ciment fekk nañ gis nañ ko fii ok ak tamit ñi nga xam ne dañuy def erreur def par exemple plus de ciment que que que qu'on en besoin mm. yooyu yëpp dafay am ay impact si kii bi tandis que nag bu fekkente ne da jël ay normes appliquer ko utiliser les bonnes quantités utiliser les bon le bon dosage à un moment donné tu te retrouves avec quelque chose de solide boo xam ne c'est c'est c'est c'est respectable mm. ça respecte les normes mm. donc euh, j'œuvre dans le domaine des matériaux de construction mm. euh, j'ai créé deux produits un qui s'appelle le CEMIX donc du ciment et du sable prémélangé à sec donc avec un dosage parfait euh, qui est prêt à l'emploi donc à l'emploi tu ouvres un sac et tu mets de l'eau nga commencé liggéey commencé raax commencé euh, kii euh, nu mu tuddati jointage des briques euh, pour le béton on a le BMix le BMix c'est du ciment du sable et du basalte ok pré-mélangé aussi à sec prêt à l'emploi auquel on ajoute que de l'eau ndox rek nga ci yokk da ngay jël kii bi euh, mélange bi nga def ci ndox commencé liggéey donc dina la permettre nga am fiabilité bi nga soxla moom la ñuy wax le concept free donc F pour fiabilité R pour rapidité E pour économique c'est plus c'est moins cher et E encore pour euh, meilleur pour l'environnement d'accord donc loolu mooy concept. bi ma la déggee nga développé bu baax ci li nga xam ne ci nga yëngu gëstu bi ma ci njëkk am mooy. danga indi innovation ndaxte mësuma dégg ku ma ne tabax dinañ ko mën a def ak saako boo xam ne comme saako ciment lay doon mais mooy doon garavay wala suuf yu bari yi daan sëq ci mbedd bi camion yi di jàll embouteillage yi nekk ci poussière ciment yi maçon yeeg yu ni mel yooyu yëpp day Sénégal da ngay jënd sa saako fekk mélangé nañ ko nga tabax mu set wecc mën nga ñu wax projet boobu fan nga ci toll ak lan nga ci séentu. xam nga boo jëlee euh, booy tabax nga ñëw ci sa koñ. nga sotti fa saako saako euh, kii euh, camion suuf dem indi sa camion xeer sotti lii njëkk a xew mooy xale yi dinañ ci fo oto yi bu ñuy jàll bu ñu amul fu ñu jàll dañ ci yéeg mu tasaaroo on perd jusqu'à trente pour cent ok de ces matériaux là mu dellu nag ci suñu environnement bi dégradé ko le donc de ces produit là c'est de diminuer wàññi attaque bi nga xam ne moom la ñuy attaquer suñu environnement bi parce que booy tabax ça veut pas dire que da nga war a ñëw fekk nit ñi ñu toog nga di leen déranger nga leen di déranger waruñoo ñëw fekk suñu environnement bi mu mu nekk un environnement sain nga ñëw tilimal ko waruloo ñëw euh, euh, koñ bi yëpp nga bloqué ko kenn mënul dugg kenn mënul génn à un moment donné c'est trop c'est trop mais ce qu'il faut comprendre c'est ceci c'est que partout à travers le monde suma dem dans un pays développé ba gis benn jali suuf si mbedd amul musuma ko gis musuma gis jalu suuf musuma gis jalu xeer ci mbedd mi te pourtant ñu ngi construire ils construisent avec du béton et du et mortier ñu ngi construire noonu donc man mon but c'est de venir au Sénégal c'est de je suis déjà là j'ai déjà commencé mais li ma bugg mooy industrialiser ko industrialiser ko ba nga xam ne mu nekk suñu yëf lii sunu yëf la c'est un produit sénégalais fait par des sénégalais pour des sénégalais et dans le but aussi de les exporter hors du Sénégal dans les pays limitrophes si kii bi nu mu tudd la sous-région dem ay Mali dem ay Burkina ñoom seen euh, Gambie ak kii Cap-Vert noonu Cap-Vert ils ont un problème de sable donc tu leur proposes un produit fini qui a du sable et du Simon dañ koy kii dafa leen di intéressé ok mais sénégalais yi nekk fii nii yi soxla liggéey comme ces jeunes mais frères am naa benn cousin boo xam ne il a tenté d'aller de essayer na ko dem na ba Mauritanie ñu wëññi ko ma ne ko man damay sant yàlla bi nga continuer wul parce que man je t'aime beaucoup dama la bëgg dama bëgg nga toog fii Sénégal jéem a liggéey mu ne ma mais grand aw ma liggéey ma ne ko gis nga yal na ñu yàlla jàppale ba ñu taxawal dara loo xam ne yow di nga fa am place ak sa moroom ak sa moroom ak sa moroom ba nga xam ne du ngeen jëlati gaal yi di dem fenn du ngeen jëlati gaal yi di dem fenn ngeen toog fii Sénégal liggéeyal seen bopp voilà je veux créer des emplois j'en ai déjà créé avec mes propres moyens il y a moyen d'industrialiser cela et en faire un bijou national pour que l'on puisse employer ñu employer ay milliers de personnes employer des milliers de jeunes ba pare am impact environnemental hyper positif et en plus pouvoir supporter certains programmes du gouvernement dont les cent mille logements par exemple quand vous, on parle de cent mille logements au Sénégal et on veut les faire avec la technologie qu'il y a qui est qui est disponible en ce moment nañ waxante dëgg loolu ça va être long ça va prendre beaucoup de temps et malheureusement le type d'emploi bi nga xam ne moom lay créer c'est un emploi euh, que je juge de de basse qualité tandis que bu fekkente ne dañuy yéegal niveau bi ba nga xam ne on demande plus de techniciens on demande plus d'ingénieurs on demande plus de de de de de de euh, d'architectes ah indil leen euh, euh, la technologie indil leen les machines indil leen les les matériaux de construction qu'il faut bu boobaa da ngay gis ne dañuy élever niveau boobu noonu ba nga xam ne les les les travailleurs dans ce domaine-là ne seront pas juste boy yu ndaw yi ñuy former ci mbedd mi di leen former ne ay maçon lañ mm. personne ne les respecte personne ne les paye assez. ok ils sont exploités et malheureusement c'est c'est l'ensemble de la société euh, dans d'autres secteurs aussi qui sont utilisés de cette manière la ba nga xam ne du amati daal euh, effet euh, développement bi nga xam ne moom la ñu war a am parce que développement du ci euh, benn liggéey rek ni ñu yokk le nombre de travailleurs ci liggéey boobu non dañuy yokk qualité bi yéegal niveau bi yéegal nombre yi jàngal xale yi ay technologie yu bees jox leen matériaux yu bees dimbale leen encadrer leen et j'ai vu on am na am na déjà des écoles des écoles d'ingénierie qui sont excellentes ici au Sénégal yoo xam ne vraiment ñu ngi def liñ mun mais doyul doyul le milieu pour le le le le le pour faire ce travail de cent mille logements qui est très louable mm-hmm. c'est hyper louable parce que nit suturaam bu njëkk njëkk njëkk njëkk njëkk mooy fa mu dëkk. nekk en sécurité. Mm-hmm. ok ce sont des besoins physiologiques yoo xam ne dañ ko soxla. Mm-hmm. li nga njëkk soxla mooy foo dëkk. ak li ngay lekk ak ba nga xam ne tu en sécurité yow ak sa famille. mais ku jóg ne bon dafay def cent mille logements pour aider les gens à avoir ça c'est très louable. comment le faire mooy wax ci mm-hmm. ok et combien de temps ça va prendre aussi loolu yëpp ça dépend de li nga xam ne moom ngay mettre en place mm-hmm. pour accompagner ton projet mm-hmm. sinon après dafay nekk loo xam ne ça traîne ça traîne donc euh, à t'entendre parler dañuy dégg ay perspectives de création d'emploi mais de l'emploi boo xam ne qui euh, met en garde qui fait appel à la dignité de la personne loolu nekk lu am solo waaye nag ci sa biir wax cent mille logements yi wax nga si fi mu toll nii sa projet boobu ndax am na ay test ay résultat yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour xool fiabilité bi. effectivement euh, li ñuy def yëpp depuis les deux dernières années parce que je travaille sur ce projet là depuis deux ans premièrement. on a fait un brevetage. y a un brevet sur ces produits-là qui montre que ce sont des nouveaux produits qui ont été homologués par l'OAPI. OAPI mooy euh, kuréel bi nga xam ne moo euh, euh, boo inventé dara moom moo lay protéger ok ça c'est de un de deux on travaille avec des laboratoires à Dakar on travaille avec des laboratoires à Thiès pourquoi Thiès parce que Thiès foofu le carrière yëpp nekk foofu la basalte bi nekk foofu la ki euh, nu mu tuddati euh, xeer bu xonq beeg latérite bég yooyu yëpp foofu la am ok il y a l'école polytechnique de Thiès on travaille avec des des chercheurs des professeurs qui font des tests de façon régulière lépp lu ñuy produire dañ koy tester de façon régulière am nañ ay clients yoo xam ne balaa ñuy wax ak ñun dañuy laaj suñuy résultat boo jëlee benn benn benn kii de de de béton boo jëlee euh, des échantillons de béton da nga koy yóbbu laboratoire au bout de deux jours ñu toj ko soo paree ñu ne au bout de deux jours lii mooy kii bi euh, résistance bi ñuy ut ñu essayé ko au bout de sept jours ñu essayé ko au bout de quatorze jours ñu essayé ko au vingt huit jours ñu essayé ko et à chaque fois dañ koy toj pour seet ndax dina am résistance bi ñu soxla vingt cinq mégapascal mooy li nga xam ne moom la ñuy ut ñun d'habitude on est au-dessus entre vingt cinq et trente mégapascal dans nos projet donc euh, on met de l'avant la sécurité man incha allah la prochaine euh, fois am na benn benn projet bu ma am fii nii à Kaolack on va utiliser le CMix et le BMix man man damay damay damay euh, waaj tabax fële tamit nu mu tuddati à Notto guy Diama une maison où je vais habiter avec mes enfants ok donc loolu bu ma ko tabaxee ak CMIX ak BMIX dugg fa ak suma njaboot ça veut dire que am na fenn foo xam ne óolu naa ko n'est-ce pas léegi bu ñu weesoo ci loolu nga xam ne mooy projet bi da nga wax lu am solo da nga ne Euh, da ngay tabax foo xam ne danga fay dugg ak sa njaboot ndax fas yéene nga aussi investir ci li nga xam ne mooy immobilier. waaw immobilier euh, c'est c'est le fort de la famille. suñu papa au départ il était transporteur. ok moom daf doon def dafa amoon ay car am ay sept place ak yooyu mais à un moment donné il a tout laissé pour aller vers l'immobilier moom moo njëkk a tabax à Kaolack. étage à euh, kii trois étages am na benn bu nekk au centre ville bu ñuy wooyee cime de Kaolack parce que moo gënoon a kowee ci Kaolack ak yëpp man euh, loolu ça m'intéresse énormément donc euh, je travaille dessus aussi mais la priorité fi ma fi may def suma suma suma kentalaayu kattan mooy projet de création d'emploi à travers l'industrialisation pour industrialiser kii boobu noonu euh, euh, la production du CEMIX et du BEMIX ba nga xam ne euh, bu subaa dinañ am ay milliers de personnes yoo xam ne dañuy dañuy liggéey ci kii bi fièrement ñu leen di toppatoo convenablement ok ñu xam ne ñoom dañoo bokk fu rëy ok am na benn plan boo xam ne trois fois un pour cent lañ koy wax un pour cent du temps des employés dañ koy jël delloo ko ci communauté bi c'est-à-dire quoi su fekkente ne dangay liggéey par exemple je donne un exemple trois mille heures par par année un pour cent c'est euh, trois heures wala kii euh, euh, trente heures donc trente heures de chaque employé mun na ko jël delloo ko ci benn communauté bu ko neex ñu supporter ko te fay ko ñu jël un pour cent de nos revenus bu dee xaalis ñu jël ko delloo ko ci communauté yi ok di supporter euh, par exemple fii nii Medina Baye récemment am na le fonds Medina Baye bu doon bu doon def ay ay travaux fii nii ok donc on met on met notre euh, suñ suñ suñ suñ mën-mën après nag ñu jël beneen un pour cent de la production des matériaux ok joxaat ko encore communauté bi fii nii indi nañ fi ay toni toni toni tonnes de CEMIX et BEMIX ok jox ko communauté bi bokk ci ay construction de mosquée bokk ci ay construction d'école bokk ci ay construction d'autres choses ok donc foofu lañ jëm incha allah. Euh, sa ambition nekk vraiment promouvoir lii di sa projet bi ba mu nekk industrie nationale ndax waxtaan nga seeg ñi nga xam ne ñooy kuréel yi nga xam ne ñoo euh, nekk de tutelle maanaam ndax waxtaan nga ci ak euh, les institutions de tutelle benn ñaar aussi Sénégal comme ni nga ko gisee industrialisation doon na loo xam ne c'est presque voilà invisible euh, risque boobu ak ambition boobu est-ce que foog nga ne c'est réalisable lan mooy lan moo la motiver pour vraiment rêver aussi grand vu que industrialisation bokkul sax ci jargon wu relance économique sénégalaise. waaw c'est loolu yëpp si gëm sa bopp ci la bokk. il faut il faut vraiment croire en soi. ba pare bañ a daw. il faut nga am fit pour def yenn yi. mun nga commencer avec ce que tu as. à l'étape artisanale. mais quand tu dépasses l'étape artisanale foofu ngay dem ba def étape industrielle bon. booy def étape industrielle tu as plusieurs choix mun nga dem uti financement mun nga dem uti ay partenaires mun nga dem uti ay ay ay ay euh, bonne volonté ainsi de suite mais l'essentiel c'est de ne pas daw l'essentiel mooy si li nga jàpp gëm ko réellement bu fekkente ne gëm nga ne lii lu baax la am na njëriñ koo ci waxal mu ne la ah mais loolu mais lan moo tax xalaatuma woon lii Parce que l'idée semble être très simple, mais elle est hyper pertinente. ok ñu bëri dañuy waxtaan mais man mos naa waxtaan ak benn gaañ boo xam ne il fait partie des des têtes des sommités du ciment au Sénégal bi ma ko njëkkee wax suma projet dafa ma ne mais Alioune foo jëlee idée boobu ma ne ko écoute damay xool rek autour de moi à la recherche de solution bu nekkoon beneen solution tamit pour une pour un autre problème dama koy mettre sur la table suivre ko ba ba lu ma ci mun muy noonu maintenant il y a plusieurs euh, kuréel am na kuréel yu bëri yoo xam ne gouvernement bi def ko fi teg pour ñu dimbalee gars yu mel ni man ak yooyu mais malheureusement àggul daal fi mu war a àgg ci man comme on dit am na yoo xam ne mun nañ koo gën a def parce que supporter un sénégalais boo xam ne dafa ñëw indi ay ressources indi xam-xamam indi détermination yam indi benn projet bu pertinent am na expérience jàng na quatre vingt pour cent ñiy diriger suñ dëkk bi kenn gënuma cee jàng ok am na expérience macha allah j'ai travaillé pour le gouvernement américain pendant dix-sept ans am na lu ma xam ok du ma toog foofu pendant dix-sept ans sans pour autant mu am raison pour laquelle ñu téye ma fa dix ans wala bo pour xool ñu mel noonu ñu ne ñoom dañoo ñëw pour jàppale dëkk bi ñu ñëw indi seen propre fonds di ci deewoo ba taxawal dara nga xam ne lii ku ko puus mu tàkk bu boobaa am na une partie une responsabilité du gouvernement à aider ces gens-là ces ces ces ces ba nga xam ne bu ñu demee dinañ indi loo xam ne ci dëkk bi éventuellement mun na nekk fierté nationale. alors sur ce lan mooy sa message bi nga xam ne bëgg nga ko lancer vraiment au gouvernement et pourquoi pas aux partenaires internationaux parce que c'est une idée boo xam ne nii euh, qui toute personne voilà volontaire peut la porter. Mm-hmm. ban mooy sa message fort bi nga xam ne yaa ngi koy lancer en tant que jeune boo xam ne tu veux le faire ici tu veux développer l'industrie de ton pays tu as amené un projet innovant. Donc le message fort, c'est très simple. Aider les Sénégalais qui veulent travailler pour le Sénégal. Nous sommes revenus vivre au Sénégal pour une raison. Man, je pense que si vous si vous, limitez, boo limité woo si li nga xam ne moom nga am comme ressource te yokkuloo valeur ajoutée ci dëkk bi amul sens tandis que bu fekkente ne da nga ñëw nga créer emploi aussi bien direct que indirect si ngay gën a am impact sur la société man loolu mooy suma but loolu laa bëgg a def ku ma ci jàppale alhamdulillah mais yàlla lañ yaakaar yàlla lañ gëm moom lañ moom la ñuy diis suñuy problème donc euh, merci beaucoup donc euh, yéen a ngi koy dégg si message boobu la ñuy daal di tàggatoo ak ki nga xam ne moo nekkoon suñu invité tey si seen émission comme politique nee aider les Sénégalais qui veulent travailler pour le Sénégal defe naa c'est une question d'actualité c'est une question boo xam ne war nañ ci sukkandiku ngir motiver la jeunesse sénégalaise ñu bàyyile rek nga tàggatoo ak askan merci beaucoup Zeyna merci beaucoup leeral point net euh, bon gàmmu euh, guddi gàmmu lañ nekk guddi ñaan lañ nekk guddi euh, julli lañ nekk Eh, incha allah fii Medina Baye lu fi nit ñaan am nañ am nañ yaakaar que suñ borom ci guddi gu màgg gi di guddi yenent eh, yàlla muhammad sallallahu taala alayhi wa dina ko nangu donc yal ñu yàlla dolli sutura bañ fekkee waat ko ay années yu bëri te yal nañu yàlla jàppale si projet yëpp yàlla eh, sutura dolli sutura dolli barkeel te dolli ñoo xiir ci jëf ju baax jëf ju baax moom c'est hyper important moom lañ nit ku nekk war a jiital mais en plus de ça nañ fàttaliku ne gàmmu mooy jour boo xam ne dañuy wax waxu yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ku fi ñëw rek mun nga jël benn ñaar wala ñetti jikko yenent yàlla muhammad yoo xam ne mun nga xoot liggéey mun nga ci liggéey pour sa bopp pendant toute l'année te boo ko doon def pendant une dizaine d'années di nga am trente jikko yu baax yoo xam ne ci yenent bi la jógee parce que da nga ko jàngee guddi gàmm donc loolu rek mooy li nga xam ne mooy yóbbalu gàmm boo xam ne ku nekk war na ko yóbbu sa kër jërëjëf merci. kon nag dégg ngeen loolu yóbbalu gàmm gi nga xam ne ku nekk mun na ko yóbbu këram. ñu ngi woon rek ñu émission comme politique émission bi nga xam ne da leen di wëral actualité indil leen l'homme qu'il faut à la place qu'il faut autour d'un débat constructif productif et positif actualité bi nag nekk gàmmu bu mag bi gàmmu bay international ñu ñëw fii ci Medina Baye def suñu reportage wër nag les bonnes graines toog ñoom waxtaan ak ñoom tey nag ñu amoon monsieur Thiam dégg ngeen waxtaan bi dégg message bi et ça va avec l'actualité qui est l'immigration clandestine ñu leen di jox suñu beneen rendez-vous ci suñu beneen émission comme politique samedi prochain jërë ngeen jëf